sorti wu excellence monsieur président de la République Diomaye Diakhar Fay ku ne xam na ne sorti bi génnul won pour def bilan 100 jours mais dafa génnoon pour défendre kilifam gu tudd Ousmane Sonko ñu gën ko xam ci Koromak pour gis na ne dafa en décadence politique ñepp a ngi koy fàttali démbam vaar yi bari na fàttali bi koy fàttali yu mu kon du dëgg bari na té bari wul ñuko défendre légui nag président en tant que militant en tant que Harit Khaïna, na euh, beaucoup défendre déjà problème parce qu'un président ne peut pas être un militant un président mënul défendre comme il le président de la république surtout jomaay bi nga ne dafa bëgg nekk euh, ne si ci ñëpp fait kon su jógee euh, défendre nit Sénégal moo qui danger bi ci njëkk mooy nee Ousmane Sonko ak assemblée nationale néna dafa wo wa assemblée mu wax ak ñom waxtaan nak ñom ne leen eh dem leen defaraat sen règlement intérieur donc kon dafa jox Ousmane Sonko deug parce que Ousmane Sonko né dañu wara défal dañu wara a règlement intérieur bi faté né constitution moy la référence des lois la constitution moy la loi fondamentale La constitution bi dafa leer ci article 55 daf le premier ministre fait sa déclaration politique générale devant les députés ça c'est très clair kon sous président né yéen dem len defar bëgg ngoy ci règlement intérieur en oubliant la constitution bi nga xamné ci la loi ne mom dina ko respecter mais aussi dina ko faire respecter bëgg a jàppale Ousmane Sonko tax mu bëgg jox Sonko alias Koromak euh, deug ba ko député même su fekké né mi ci bon sens pour djubalé je pense que ci président de la république lolu Sénégal mo ci danger waruñu tann constitution tek constitution tek benn nit président bëgg jox deug Parce nit parce que moy kilifaam ci politique en détriment de la constitution excellence Diomaye Diakhar fay néna euh Ousmane Sonko alias Koromak du xaritam c'est pas sérieux parce que xam nañ ne nit mënu leen a tuddante doom te du sa xarit nit te fu ne toog na fa ne Ousmane Sonko xaritam la léppam la tey mu ñëw ne du xaritam defe naa crédibilité bi ñu accordé suma jaamu séeréer boobu laajoon na mu moñ a ba ci suuf ba ci propos yu mel noonu nga xam ne buñ ko waaree ëllëg. am na ko nga ci ne ah yow ndeke mose président du xaritu Koromak mu ne ma ah, kon xanaa sëriñam la su tollee foofu nag. le Sénégal est en danger Néna, Ousmane Sonko daf war a toog daf ko bëgg mu xool fauteuil bi parce que moom liggéey na fukki at pour Falco. ko a insisté na ci ne a continué continuer ci pour Falco. ko ma defe ne président d'Afrique pour bu servir tout un pays toute une nation taxaw naan damay liggéey pour Falco. cette dévolution pacifienne. Hmm? je pense que le Sénégal doit nous rejeter en toute vigueur en toute responsabilité parce que bien dévolution bu fi et sur am fi du woon ci Ablaye Wade bi qui dévolution monarchique du woon Macky Sall dévolution ethnique mais aussi du qui ci Diomaye entre Sonko Kromak et Diomaye parce que nous ñaar beaucoup passifs qui devraient dafa après noppi jox te loolu remettre na en cause équidistance bu Diomaye Faye remettre na en cause personnalité Diomaye Faye en tant que président remettre na en cause crédibilité Diomaye Faye en tant que gagnant de la Constitution mais aussi en tant que père de la nation j'avertis Diomaye Faye dañuy moytu dal ci kawam ndax yaram wax naa gis bàyyi li ma doon wax ci mën nañ toroxal borom borom lu ne muy borom juddu muy borom alal muy dara daraja muy borom xam-xam mais kenn mënul toroxal borom yar donc yaram ñëpp respecté nañ ko ba tax boo xoolee Koromak lañu ëpp lu ñuy tiire ci kawam parce que moo gën a arrogant parce que Ousmane Sonko moo gën a réew parce que Ousmane Sonko moo gën a xamadi parce que Ousmane Sonko moo moo gën a yareediku parce que Ousmane Sonko moo gën a extravagant Ousmane Sonko moo gën a complexé vu tout cela sénégalais fay nañ ko war nañ ko ne ko yow mi yaru yow togal ne donte yaay chef bi bal ñu wax ak kii ak réewandeem motax tax Gros Mac reçoit plus d'attaques que le président de la République lol nak bu ko jomay fay yak bu mu ko bu mu ko jëndé ak ku mëna a doon ak lu ñu c'est privé c'est en privé mais am réew du lo xamné ne dana noo kii mooy sama copain wala ki moy suma suma ami wala ki moy suma xarit wala ki dem ko wara retourner le bâton parce que moma ma dimbali won ma yegg fi fii sénégalais duñ ko nangu. duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk té bu ca jomaay fay àggee mu xamné Sénégal duñ ko duñ ko duñ ko nangu bala sénégalais àgg mom nak ce n'est pas l'opposant aujourd'hui qui parle si si c'était l'opposant qui parle ça allait être beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus virulent mais je vais pas faire comme ça Aujourd'hui, c'est le leader d'opinion et le, et, le, et le, religieux qui le conseille. Euh, Mon Ubeko aussi comme Nico ko on waxee woon bi muy wut ne su ubbi ko bu ñu jëlee dinañ ubbi ci ci ci force yëpp ci compétence yëpp c'est pas vrai ubiko gounou. guñu mais mangi ngi digal jomaay di ko xelal na ko def parce que niveau bi na en écoutant le chef de l'État euh, di nga xam ne nag néew bi des na tuuti loolu nag war na ubbi ko ci compétence yëpp pour que ñu yéegal niveau bi pour que ñëpp servir Sénégal pour que Sénégal jëm kanam. aussi fustuser sélection bi ñu def presse tànn ñu leen neex seeni journalistes yi bopp gën nañu ci des loolu rafetul man defe woon naa ne Koromaak ak fi mu jaar ak presse tey du nekk pouvoir di ko doxali nii bi ci toppaat mooy. Euh, ma xelalat ko mu équilibré ma xelalat ko aussi mu négocier ak toutes les forces ma xelalat ko aussi mu gëna dal parce que Sénégal soxla na ko te it dal ku ko déglu dal jar na ñëpp jàpp ci bu dul loolu rek Sénégal mu mun na am jafe-jafe ëllëg. li ci des nag nga xam ne ñooy waxkatu yu bon yi nga xam ne ku fi wax dëgg ñu saaga la waxoon naa leen man sëñ Modou Bousso Dieng laa tudd baal leen ma ci baat bi man faale wu ma seen waajur ñoom ñëpp man faale wu ma seen waajur de waxoon naa leen cent jours laa leen mayoon luñ ma xamal ñu wax ko luñ mën ñu def ko maa ngi fii je l'avais fait avec Abdoulaye Wade finalement dama am Je l'avais fait avec Macky Sall. Finalement, fait avec je l'ai fait avec Cromac ku baaxul fait leen diw mi baaxul ne auto pas, me rejoindre Je man maa ko attaqué fii tey ñëpp a ça c'était ma vocation et ça c'était mon objectif en tant que d'opinion de dire non